jërëjëf mbokki amee internet Zarak Vision mbokki ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen bëggee di leen kontaanee comme ni ñu koy defee ak yéen saa su ne mbokk yi tey ñu ngi géejawaay ñew si champion ko xam ci lamb la bokk muy mbeytin mbeytin di nana nek eco de Mor Fadam eco de lutte bu mak la nek beurek ay nanan mom mbeytin dan daan ay nanan te mbeytin dañuy gis muy faral di geje beure ay combat am di soré depuis ba mu bëree ak Talfa la mu bëreel yaakaar yakarna ba léegi mbeytin Tine watul te nanan yu melni mbeytin Mbaye waruñu di geej ci lamb parce que amna ndox tu bëri yu nek ci mom amna lo lamb soxla nako mi ngi ci mom kon mo tax tay ñu seet ko bëgg waxtaan ak mom ci toogaayam bëgg waxtaan ak mom ci géej bëreem lan la dañ koy nuyu di ko mu nuyu ak mbokk ami internet bi mbeur ma ngi lay nuyu di la siyaar waaw ma ngi lay fay gënaa ba sante yalla yàlla julli ci yonente bi tedd bi sallallahu alayhi wasallam di sante suñu ñaar wajur di sante suñu ñaar wajur di sante suñu sëriñ bu baax Cheikh Modou mm-hmm. baye sëñ Samba soxna Jaara di nuyu wa géej gi nga xamantene fi la juddo fi la yero di nuyu borom kër gi cham Mm, di si jiital Pape Thiam ak Sukkay di si nuyuwaale sëñ Saliou mi toog Zal ak sama ndaamali ak sama président kat yi boole ay nuyu ñëpp di nuyu Mourtala tamit ne. macha allah Mbaye Tine bëreem lan la mbaytin nekkoon na ci allure bu am solo nekkoon ci allure bu doy waar ñëpp di wax mbaytin mbaytin Mbaye mais bu jékki-jékki rek coowam deñ lan la. waaw loolu lépp ci yàlla rek la parce que nit ki moom jaam jaam lañ rek lañ ay jaam rek lañ dañuy uti tey ñu am suba ñu ñàkk comme nag ñu ngi defaraat ñu ñaan yàlla rek affaire yi ñëwaat ci jàmm ñu ngi si waxtaan ak ñoom zaal ak ñeneen i kilifa waaw. macha allah nga mujj ci ak xale muy Talfa xale boo xam ne xale bu am coow la xale boo xam ne nekk na ci làmb làmb wuy si na ko nga bëreek moom ñàkk ci. tey nga toog booba ba léegi bëriwaatoo est-ce que promoteurs yi ñu ngi lay woo di la proposer wala yow yaay taamu. non man mosuma taamu. mosuma taamu day fekk euh, promoteurs yi adversaires yi ñuy wax. duñ mën a comparer mbaytin te ji am na yenn mbër yoo xam ne boo leen nee mbaytin mm-hmm. fa la ñu nekk di xaar lii wala laa. te man moom keroog rek dem naa émission ne leen nii mm-hmm. yéen laay déglu bu mbër mi paree pare naa mm-hmm. parce que man tollu sax fu mooy mayee may wàcc di bëreeg ñeneen ba ci am ay ndog-ndog kon yooyu dama koy kale teg na le instant bi nag maa ngi tàllal sama drapeau ci tous les plans nag ku ñëw ñu bëre ba mu neex ma duy waa géej waaye ci stade bi ñëw daan ñibbisi incha allah. mais promoteurs yi ñu ngi lay woo di la proposer. waaw ñu ngi may proposer mais proposer guñ ma ki nga xamante ne ñoom làmb bëgg na ko. parce que booy proposer proposer nit ki kii kat foo nekk affice bi taaj ñu xam ne kii jaadu na. mais di imposer mbër yoo xam ne affiche bi boobu jaaduwul. xam nga ko xam nga comme ordinateur. Mm-hmm. ñaari combat la fi bëri. boo ko bëggee proposer mbaytin ci combat dóor. Mm-hmm. mooy affiche boobu neexul. Mm-hmm. waaw lool la rek. Mm. kon ñu ci mel ne mbëru simple yi ñooñu lay proposer mais tey am na ñoo xam ne tey ñu ngi ci làmb ñoo la jiitu ci làmb bëgg nga bëree ak ñoom. bëgg naa koy parce que ku sañoon rek bëri ñi nekk ca kaw. Mm. tey jii nii ñëpp seen bët fan lañ ko teg ci Modou waaw keneen ak keneen teg feneen bët mhm. man teg naa ko sama bët mhm. waaw daa fekk nag jotagul rek pour ñu jox ma ñi ma bëgg rek mhm. waaw. mais grand yi nekk ci kaw. ñan nga ci bëgg tudd le non man moom fi mu nekk nii amul grand parce que moom ku làmb xam moom. ñoom rek ñoo war a business làmb ji mën a neex ñu dem fubale mu jeex. na grand yi nekk ci kaw di may booy sens ku ci mel ne ay ñoom Zos ñu ngi ci kaw. bu ko bëree xam nga tey jii nii buñ bu ma buñ ma bu ma laajee Zos day mel na dama kaa bëgg a doggali. fu ñoom fu ñoom xaw ma liis njaago di jaar moom. man fu ma jaaree day damm. moom mais Mbaye Tine nag dafa gëj a bëre te Mbaye Tine Talfa moo la mujjee daan. non loolu du ci dara chaque jour nga gis ku daan ku la mën Talfa téeméeram maa leen mën. mu daan la. waaw déggoo ma de chaque jour nit daan ku ko mën tey jii nii Lo ñan ak ñan ñoo ko fi daan te mu ngi nii dégg roi de arènes ah. waaw léegi dégg na roi des arènes. mais mais Talfa bëree ci Talfa est-ce que newul ci Mbaye mënul feeñ ci man parce que. bëre yow daa rëy de. waaw daayira yi xam nga tey jii ni buñ la déewee ne la demal jëli lële da ngay dem jëli ko rek waaw daa ñëwoon jëli ndamam rek yaa ma gën a xam hmm. mais mais mais Mbaye Tine tey làmbu gis nga fi mu toll promoteurs yi ñu ngi ñëw te Géejawaay am nañ promoteur boo xam ne mooy Alburax Events muy Baye Ndiaye mu ngi tëgg xale yi est-ce que moom mi ngi lay contacter pour tëgg la non bu nekkee dëgg woowaguñ ma parce que boo xoolee ku mel ne Moutala moom mi les jeunes la ci Géejawaay hmm. di jàppale bépp jeunesse Guédiawaye léegi-léegi daa ñëwoon ci jaale si passage kër ñoom Moussa Mboup di jaale sama mbokk yooyu yëpp ñu ngi ni war a suñu jugee fii deux heures maam dañuy dem yóbbu suñu benn grand frère Dieng jëm jébbal ko suñu borom di ko ñaanal yàlla ko yàlla yërëm te xara ko aljanna léegi léegi mu ngi ci doon doxtu ci waa Alburaax et cetera mook Saal xam nga ñun moom ñu nee na ñu ngi seen ginnaaw rek waaw lu ñu décidé rek yaa ma gën a xam. Hmm. macha allah géejawaay fu mu toll ci làmb ñu gis ne def nañ ay sorties Balla Gaye bu mujj bëri na ak tafaatin mais sorti yu ci bëri duñ gis mbaytin ci biir lan la mbaytin dafa réservé wu wala 100 cent géejawaay bi ñuy wax moo nekkul dëgg. non man moom ay 100 pour cent yënguutuma ci côté boobu man li ma gis mooy ku am bis nga yëgal ko Mbaye mu ngi ci combat Balla Gaye bi ñëw naa mais man. à chaque fois ginnaaw Alioune Seye lañ topp ñun parce que kooku daa tëddee ndey gi seex ñun lu ñuy yëngu mu ngi ci biir ñun dañuy sol suñuy dàll dem ba ci kër mbër yu mag yi di leen expliquer wala woo leen si ne am nañ combat mais lu ci war duñ ko si def comme Alioune Seye mooy def lu ci war kon kooku la ñuy suivre yaa ma gën a xam mais amuñu kenn problème. mais xam nañ sa diggante guy gi yéen ñaar yéen a boo ko écrir. waaw ñoo boo ko écrir ñoo boo ko écrir waaw. mais combat la ci. waaw combat mu mujj waxuma ko mu mooy fekk fi bërëb bu may liggéeyee mais waxuma dara wax dëgg yàlla moom moom waaw. Hmm. mais école Mor Fadam ñu gis nii dafa nekkoon ci dynamique bu am solo nekk ci dynamique bu doy mais jékki-jékki champion yi fa nekk daa mel ne ñoo bëgg a école bi lan la. non du sàggane xam nga tey école tey jii nii dañ ne la boo boo yoree ay xale. boo demee ba benn instant war ngaa mën a retenir dara woo xale yi. toog ak ñoom ne ah, affaire bi nii lay doxee nii lay doxee nii lañ war a def fee lañ war a jëm mais boo ko def saison bu tëjee tëjul yëpp defoo ko ay fay yu bari day am te pour man njabooti moom boo njaboote moom yemale rek buñ ñu lépp rek lépp ay baax mm-hmm. waaw. mais est-ce loolu dina jëmale école bi kanam. comme. comme ñàkk a déggoo gi ñàkk rensemblement bi. waaye jumaa sax bu amul déggoo du dem. mais ngeen bëgg a continuer ci allure bi ngeen nekkoon du yomb. non xam nga tey jii ñoom mag ñi. bu ñu liiree xam ne lii doxul tey jii ni boo xoolee keroog maa dem benn site mm-hmm. ma dégg ñuy génne ne ay bilan ñu naan école yi ma fa xam am na dix victoire nangam sangam mm-hmm. man dama sëgg noppi mm-hmm. parce que ay talent ñoo nekk fii mënoo wax bébé guy gi ne ne ne ne ne ngalaa xam nga am na yeneen boo yoo xam ne jug ne ay ñoom zos xam nga loolu daal war nañ cee mën a jug saytuwaat ci lu bare bare bare bare bare bare. Mm-hmm. Mm. macha sa yoonu làmb sa ay supporters ñu ngi lay seetaan lan lañ mën a xaaraat ci retour Mbaye Tine. bari na parce que ku nekk mu ngi may woo. ku nekk mu may surtout fee may liggéeyee ne mooy APESQ. di si nuyuwaale ñoom Saliou. xam nga Basirou Ka Babacar Diallo. ak commanda commanda mm-hmm. moom mu ngi siy bay waaram moo maawoo. xam nga gaa yëpp ñu fa nekk ñoo xamante ne dañ may jàppale ci biir ak ci biti waaw ñu ngi ma si jàppale lu bare bare bare bare bare lu ma loolu daal ma leen wax rek maa ngi pare daal maa ngi pare. am fi ñu toll mobilisation da cee bokk en ce moment de. ma wax la benn affaire musuma ñàkk mobilisation. bu nekkee dëgg rek la yàlla bëgg. xaw ma de man premièrement damaa jaar mbapat. fii daan fi génne fii waxuma la asak naa de. fii trente car daan na fi génn. ak oto yu ndaw yeeg moto yi ñoom Saala Thiam ñëpp taxaw mm. gaa ko jënd bii yi mm. kon gàcce ngalaama Malick Gakou moo tax dama koy ñaanal rek mm-hmm. gudd fan gisante wuñu déggante wuñu mais li mu defoon ba léegi mu ngi fi waaw fi làmb toll yaa ngi dégg coow làmb li amoon ci làmb mbaytin moom mu ngi ci ruxam yoonam newul ci kenn mm-hmm. mais am na kàddu yu juboon ci làmb ci ay mbër ci ay reporter ci ay ñoo xam ne promoteur ñu tudd leen ci ci nit koo xam ne nekkul sax ci réew mi tey Mbaye Tine ba mu déggee loolu nekk mbër di dund làmb lan la def ci moom. waaw man déglu naa wax ji tuuti. mais topp ma ko au fond. parce que tey jii nii genn golo gàtt na mais loo ci laal mu yëg ko tey jii nii mënumaa nekk ci làmb. keneen ñëw di yekk waa làmb dara. ma taxaw nootir. parce kooku xaw ma ko. maa ngi dégg ñu naan coach su nii coach su naa coach su naa xamuma ko bu nekkee dëgg damay gis ay interview am ne rek muy wax xam nga yor sa benn téléphone toog sa biir oto wala sa di wax lu la neex loolu dafa yomb tey boo nekkoon Sénégal nga nekk di wax dinañ mën a génn tontu la mais man comme xaw ma fee bi nu mu demee ak nan lañ ko defee du ma ci mën a wax mais daal li muy def na xam ne moom doomu sénégalais la te bu lu mu am fii la jëm si bu mu dem topp ñi nga xamante ne dëkkuñu fi bu ñu amee fële la ñuy yóbbu muy yàq der parce que moom dafa war a dafa am ay njaboot suba suba ay ay ay day génn ñu ne ah sa baay moo doon wax li loolu daa ñaaw mm-hmm. no na delloo xelam tuuti mm-hmm. waaw loolu bi mu amee ci làmb am ñoo xam ne ñi ngi ci doon wax am ñu dem ba ne sax gis nañ ko te finalement li ñu mujjee mooy vidéo yi amul lañ waaw parce que man moom nee naa leen képp kuy def sa lu bon mm. yow la concerné mm. gis nga suñu borom bu la defalee sutura suturaal la ba moom yow kese yéen a gis mais man waaye waru maa mën a ñëw dugg fenn ki nit di ma vidéo ba di xaawi sama suturo xaawi sutura baaxut bu la yàlla nëbbalee sa sutura nëbbaleel kee sutura jàmbur man du ma xaawil sutura kenn waaw képp ku mu mën a daal daal nañ xalaat waaw ñu bàyyi partage vidéo jàmbur yi waaw ci làmb toll lan nga gis ci làmb loo xam ne war nañ ko yokk wala loo xam ne war nañ ko wàññi parce que génn nañ ci saison bi tëj nañ instant ñu ngi jëmaat ci beneen waaw lu ñu war a mën a yokk war ka mën a wàññi tey jii nii ñu promoteurs yi bari nañ mais quel menul ni kanji waaw kanji gis nga nu muy defee développement tey jii day ñëw xool mbër mi nga xamante ne amul combat war nga mën a liggéey ci société mu xool yow li nga war a liggéey mu ne la acca kaay mu gunge la am na promoteur yoo xamante ne ñu ngi fii moom da la ni guider nga am kii lambu mu yëkkati som jox la. kon bu ñëpp defee ni comme Kandji day dem man sama benn doomu ndey ci la nekk diwaan dama koy nuyu passage diwaan sama gaañ la diwaan amul korité amul tëbësi dafa mel ne comme li may wax ci Pape Thiam mooy borom kër gi seeri sukka yi lu nekk lañ may defaral barke Serigne Touba Mbacké dama leen ñaanal jàmm ak tawféex ak taysiir lépp lu ñu yóotu daal yàlla nañ koy jot waaw yaa ma gën a xam. macha allah. Mm. làmb ji nag combat neex taxaw na Modou Lo Siteu Ama Baldé. ak ki xam ne moom mooy François Emi Gomis taxaw na combat yu neex booy ñaar rëg rëg noo ko gisee. waaw combat yu neex la komba yëpp a neex wax dëgg yàlla di ñaan yàlla yàlla nañ ci egg ak jàmm te ñu génn si jàmm te tamit suñu borom dogal tamit ñun ñi ñu am komba génn ci ci jàmm parce que dëgg la toogaay bi nag tamit yàgg na lool parce que moom nit moom buñ ko daanee buñ la daanee promoteurs yi dañuy profité bëgg laa joxaat ay coxo coxo te yooyu moo doxatul te tey jii ni moo mënoo ñëw daanu. ñu bëgg laa jox comme ku mel na. koo xamante ne ay ñaari combat ñetti combat la fi bëre. bëgg la kaa jox. loolu demul. nañ ñu jox combat yu ñu bëre. mais potentiel comme na. non xam nga tey jii nii man mënuñu la seet si nag nga jaaxaarloo sa gars ba pare ragal ñi nga war a tudd. non man musuma ragal. Ah, mais comme ña. comme ñoom Gris 2. Gris ah, mu ngi foofu. Forza mu ngi foofu. Forza Moussa Ndoye combat am daa yàqu. Ah, na ñëw ñooñu say adversaire lañ. bu baax konteel seen i victoire ëpp nañu ma victoire. te lu ñu duy ci stade bi ma duy ko. Hmm. kon wala maal. Ah? ñu ngi toog amuñu combat. waaye fa la ñuy toog di bay guro rek nañ ñëw. ñëw nañ ñëw ma bëree ak ñoom. waaw bég naa ci yow. man chaque jour ma bég. Hmm. damay nuyu Saliou rek. Hmm. parce que moom grand bu ñax euh, ki ñaan la. moo tax Assane Badiane bii. xam nga àdduna moom yaa ma gën a xam. mais damay nuyu kii nag boole boole dama koy nuyu bu baax parce que affaire yi demoon na ba am foo daf dafaa toll du téléphone du lenn day def déplacement am jël motoom jënd essence fekk ma fu ma nekk ne ma da ngay génn ay combat Balla Gaye yi sax moom mooy defaral ay set ne ma génnal dem mu xaadim fay boole daal gàcce ngalam moom laa moo ma doon woo léegi-léegi mënu ma xaa décroché di ñaanal sukkay moom ne mu jug ak jàmm yaram bi xaw a suutante mu ngi nii ci salle bi du nuyu képp koo xam rek yaa ngi may xaar xaaral rek ñoo ngi ñëw ak ñoo bi nga xamante ne ñëpp dinañ kontaan di nuyu amaat amaat borom ñaxiraat maa ngi koy bégee bu wér a wér a wér a wér a wér mm. taw féex. sa doom mbay Pam mu ngi fi Pam kay kii nga koy laaj Saliou. <laughs> daa daw de. waaw daa daw ndiir la def ndiir. macha allah noonu la demee. Mbaye tin mom la ñu ñu ngi koy bëggé bu baaxa baaxa baax diko contané di ko kontane mom la dafa bok ci làmb mais jo bala ñuy dem dafa dafa am sam benn frère bo xamné Petit mbay lañ koy wax Petit mbay doomu bekay mbay la Aliñ Petit mbay mom lañ ko tuddé dafa tëgg làmb mu ngi tëgg làmb la Mbapat la le 8 septembre bi di ñew la ko tëgg diggante cité bu far Siteu Faramaren moy bëree grand combat bi ak cité bu xees ñom ñaar ñokoy koy ciatu asalem dina fa bëree ak Bébé Coins loolu moo doon combat combat bi topp ci komba mooy spécial bi moo topp ci avant grand combat bi Coins wala book wala boog Guita Guita Ngas dina fa bëre ak ki xam ne moom mooy safara bu ndaw ay combat la yoo xam ne mbapat la moom moo ko tëgg foofu lay amee ci Grand Dakar le 8 mu doon pëti Mbay doomu Bécaye Mbay la. waaw loolu moom làmb ñëpp la. parce que moom xaw ma lu ñu naan xaw ma Bécaye xam nga ñëpp ko xam ci làmb. moom moom xorom la ci biir cin li mm-hmm. ñaan doomam ji laal yàlla na réussir ak jàmm rek. Mm-hmm. waaw dëggee làmb wàcc na. waaye war na ko. turandoom promoteur war na ko. da ko ci sàppali rek. noonu la demee safal cin bi la rek. noonu la demee la ñëw nag gis si sama booy yi. waaw ñoom itam ñu jël ci combat yi. noonu la demee waaw yaa ma gën a xam. noonu la demee loolu le 8 septembre lay amee foofa ca Grand Dakar Petit Mbaye mu ngi noonu bis la boo xam ne. ñun dañ ci ànd ak yow ci lépp noonu la demee bëgg nañ la di la kontaane bu baax a baax a baax joo moom ma nekkoon ci cadrage bi ñu ngi koy bëgge bu baax a baax di ko kontaane jaajëf gars yi bëgg naa ci yéen